Seydina Mohamed ñun ay taalibe Cheikh Ahmadou Bamba lañ jébalu sëñ Abdou Lahad ambassadeur mu sëñ Fallou ñun dañoo gëm ñun lu ñu gëm xol muy nekk suñu ñun sat guddi bu ñuy tëddi dañuy naafle di ko sante Cheikh Ahmadou Bamba di ko di ko ñaanal yàlla yàlla gën a yokk ay leeram ñun duñu ay naaf fekk ñun tirise wuñ si luñ doon nekk naaf fekk nag moo gën a bon ci àdduna kat mooy naaf fekk ñoom ay naaf fekk lañ parce que xam ma la ay naaf fekk lañ parce que ñoom ñoom ñoom ñaar parce que du waa géej waay ñoom ñaar ay naafeq lañ ay seytaane yu mag lañ parce que combat bi muy taxaw ci affaire Wally Seck ak Pape Diouf ko bëggoon duggee ma ma éliminer leen leeral ñu bàyyi mu sedd ñu ñëwaat duggaat ci yeneen détail may loolu barki dem moo njaay yow même boo contacté boo ñaa man boo ñaa su ma gaañ la su ma boo ñaa woon ne ma kaay lekk damay dem foofu lekk bu suuf ñun xam nañ ki nga doon ñun ñun xam nañ ki nga doon yow Boucher yow Mamadou Camara doo waxkatu dëgg lu la neex nag defal doo waxkatu dëgg man maa ko wax. yow doo waxkatu dëgg. bi ko daggee booy maa sañ woo man dama ko bloqué. dama ko bloqué dama ko éliminé parce que man bëgguma dugg si affaire am yooyu. Mhm. yooyu noonu muy def détail yooyu du koy yóbbu ci comédien yi man du ma comédien yi. Mhm. man liyam laa soxla ci làmb ji. lan liyam liyam laa soxla ci làmb ji man du ma comédien wu kenn. yooyu muy def da ko defee man làmb xamaluma Pape Diouf dara xamaluma jëkkëru ay desamb tam xamaloon dara man lamb lañ seeg <laughs> lamb ji dem nañ sax ba ciy dugal ay affaire de Matar Diop suba teel ak <laughs> ak ñoom seen clip googu nekk ay Europe ay affaire ñuy jéem wax ay détails <laughs> man sama yoon nekkul ci Matar Diop suba teel sama yoon nekkul ci Pape Diouf man waali laa man affaire yi parce que suma grand la moo yëkk xaalisam may ma dama ah, ko waali laa may ci combat bi xaalis non waali chaque com chaque combat mu may ma xaalis non non noonu non non. Ah, wala Pape Diouf ak non non Wally Seck day ay moroomu Sidi Diop ba ñuy taxaw fi naan ay Sidi Diop ak Wally Seck yu kenn xamul. Pape Diouf rek non non man ay Pape Diouf dégg nga moom laa lay bëgg a leeral ne dama na la dafa war a def ni Wally def Wally dama na ko ñaanal ma mën na ma que le meilleur moom duggul ci ay détails lam barki sëñ Abdoulaye Khat mi ma yaakaar loolu la Wally wax Sidi Diop moo njëkk a dugal esthétique naan waaw waaw yaa mën yaa ëpp doole waaye yow bàyyil ba mën ba ëpp doole yow Sidi bal ba mën ba ëpp mais combat daal ñu bari lay de. non ay détails ay dugal ay boo doone artiste. yow nga doon xam lay man mii dama koy déglu téléphone am samay ay son yi nii lépp laay supprimer sama téléphone. sama téléphone. si sama téléphone son bi. dindil <laughs> dama lay wax man la gëm. li Pape def Pape ay son mën nga ko Pape ko bu wuti ji mais du question ay làmm ngay dugal kii moo mën kii moo pëdal yow doo bàyyi ba mën yow koo mën yow ki ki ma jox nii nañ bàyyi ba adbisé si kàttanu yàlla ñu xool man yàlla rek laa yaakaar yàlla rek a fi nag bu xawuma la jéwuma laa xam man xamal li ma xam gère on dég ñafe am doole am kàttan liggéey wóolu sa bopp teg lépp ci loxoy yàlla parce que fii yàlla kasee fi ne ku la ne yàlla nekk fi day fen fii yàlla rek a fi ne yàlla moo yor lépp barke Seydina Mohamed ba ma xamee ne yàlla moo ñu yor moo yor lépp mooy xañe mooy ñàkk si laa kii ragal a nit yaat buuse déggoo li ma la soo ma jokkoo rey reen ma su ma leen jokkoo duma leen jërëm parce que man li ma metti man maa koy fajal sama bopp ci kàttanu yàlla incha allah te yàlla nu yàlla may wér tamit may la wér yàlla bu kenn yàq combat bi waaw yàlla bu fi benn médical ñëw ne ñëpp ñëw ñu bëri incha yàlla defal ñu jàmm. yéen a ko déggandoo. Mhm. kuy taxaw kay saaga sa papa. saaga la fekk la nga woor ba sonn. Mhm. di woor di jaamu yàlla. Mhm. mu naan la yàgg sa koor sa mais loolu c'est loolu ban ban ban réew lañ nekk. man combat bee tax nii rek su ma ko su ma man su ko toppoon. combat bi doom parce que bind naa benn pelent boo xam ne pour moom la moom mi wax loolu. pour njàmba. billaahi wallaahi laazim parce que su ma ko toppoon bu ma ko fekkee man leer na man maa ko mën. mais duma ko def dara dama koy yóbbu ci yoon parce que ki fogg ma teg mo mu no sam dañ kay wo mu tok ma tok bu fekke mo fekke fi mo sam sam papa lay dina ko billahi wallahi lazim, barki seigne Abdullah mi yaa day leer day leer nañ li ken mënu day leer lim ma wax ni lim ma wax ni sa yow mi ko degge sa da nga ti waxu lamb ba ci lan ba ci papa jàmbur munon na ma wax lenen mais pas sam papa sam papa dama ko beug papa dafa neex nga yew rek nan papa ma naan fils est-ce que yaa ngi pare sa combat bi du la kii parfois papa xëcc ma nii loolu nu mu neexee xanaa ñoom dañoo amul papa moo tax ñu bëgguma maa sam papa. non non non non bu mu tax sa mais mais mais da mel ni noonu loolu lay ndural. ci lamb waaye déggoo fi ak ma ngi dund si kaw suuf sama papa sama yaay kenn du leen laal bu mu juddoo ba légui ñom la xam ba mu juddoo ba légui ñom la xam amul lu ma bu yóbboon na ma ñepp bàyyi sam papa lañ wax lu ma ci wax dama koy wax à part combat bi bu jéxé jàmm du am bu combat bi téye buñ béré pare jàmm dootul am man ñi ma leen suul atuna ak al-akhirah àllaaxira barki ya rasulillah ñi billahi wallahi lazim la la giñal ñi fuñ jaar du ma fa jaarat barki Seydina muhammad billahi ak sama bakkan dom barki seigne abdullah mi ma yaakaar ñi ma lu sekk tek ñom dara ci aduna parce que li yenn yi dafa ñaaw non dafa ñaaw non non ngeen jëf jara maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi baalu ñëpp ak di baalu hmm. ñëpp ak di baaluwaat ñëpp ak di leen wax ne dafa loo xam ne nii il faut ñu koy leeral hmm. parfois boo génnee wax ñaan non dafa bëri wax question bëri wax de fi liñ ma wax moo ma metti nit musuma kaa wax mais loolu nag day leer day leer si kàttanu yàlla yàlla yàlla defal ñëpp jàmm maa ngi sant sama staff bu baax bàyyi njoogu <laughs> dix mille xam nga <laughs> ñëw suma gars yi na ko na ko champion yi jël mu ñëw bëri ñoom xam nga xam nga di profité waale di baalu ak journaliste yi journaliste yëpp ñu leen baalu ak <laughs> parfois lii boo leen ko dugalee am na ñu naan ñoo ñii ay défaillant la ñu dafa war di leer ñoom ñii joxuma leen fikki dërëm jox signature laa ñëw ñu daje fi xamuñu woon ba xam dañuy ñëw fi ñu daje fi di ñaanal promoteurs yi tamit yàlla defal leen jàmm ñëpp daal yàlla leen suñu borom defal jàmm di sant Baye Ndiogu mi baax ak ñoom Moussa Fall ak Oustaz parce que ñoom mënumaa dem fenn sans ñoom di sant ñoom Moussa Diop ñoom Papa Jean sama yaay na fi jaañ ñu ngi lay woo ci làmb yaa daan Diouf ñoom Assane ñu ngi leen woo bu baax a baax ñu siyaar ñëpp di wax ni sama l'international petit petit wala West xam nga Philippe borom espoir ñu ngi koy woo bu baax baax ci combat Philippe mooy sur l'international bi da ko Aline Cissé nag woo quoi bëgg nañ mu ñëw ak Aline Fall Del Piero ñu ngi leen sant baax petit sama njaago bi maa ngi lay wow bu baax a baax waa bi ñoo naay jërë ngeen jëf mbokk yi Cissé la woon gis ngeen ko jërë ngeen jëf